waa tey dama xëy si bi may ñëw ci yoon bi la ma délégé marché bu ñetti mbaar woo bi ma woowee ne ma sa kees dañ ko ubbi dañ ko dajji bi ma ñëwee am grande surprise ma ñëw fekk ñu dajji kees bi bu ñu ñëwee ne dañu toog xaar police mu ñëw bi police ñëwee def constation yi xam naa dañoo utiliser seeni i moyens rek mais du clé xam naa dañ ko dañu am seen kii yuñ ko dajjee mais laaluñu fi laaluñu fi dara xanaa di di wax sécurité bi rek euh, comme euh, état bi ñu gën ci taxaw parce que comme dañuy def couvre-feu dañu war a jël place yi nga xam ne ne ay liggéeyukaay la ñu teg fa ay nit yoo xam ne ne soit ñoom ñu veillé foofu ba nga xam ne ne yii du am waaw parce que lii nii moom day xaw a doy waar ndax ñëpp mënuñu tëju ba pare am yii di am daal waaw bu fekkoon tey jii suñu coffre bi selewuñu ko woon nekkul ci benn sécurité kon dañ koy dañ koy dajji dañ koy ubbi mais yàlla def na ci sutura ba lool yëpp mënuñu ko laal jée waaw waaw jéem nañ ko mais mënuñu si dara parce que coffre moom si sécurisé fi mu nekk nii moom